Wade ne laajte ba xam ndax ci réewum Sénégal lañu bokk ngir ay jafe-jafe yoo xam ne nii dëkkub sëriñ Mandoumbe Xabane bi ma ngi koy jànkonteel bile dëkk nag ñàkk aw yoon ñàkk itam lépp lu jëm ci wàllum courant ndox ak itam bërëbu fajukaay. ñuy bëgg a laaj président ba xam liñ ko doon andil kayit yi da koy ñuux ci ron taabalam wa ilaa moom si boppam daf ñoo faalewul wa ilaa dafa am ñu muy yebal ñoo xam ne dañuy dundee suñu suñu tur di ko doxee te egg si wut si ñun ñun loolu lañ bëgg a xam ba noppi benn non président ndax da ngay xool sept toog na ko fi réew dëkk bii defu fi dara li ko dalee ci daaru xafoor ba dugg ci biir dëkk bi bu ab tali bu xonq la boo xam ne ni daanaka oto yi sax mënuñ cee jaar bu baax rawate li nga xam ne moo di charrette nga xamante ne ni ñoom ñoo di waa dende yi ak war na cee taxaw bu baax a baax ndax yàgg nañu koo dugal ci seen nopp waaye daay dafa mel ne càkkuteef boobu dañ koo tàbbal ci nopp tëx Touba daal appel programme bi jël ci Touba te sëñ Touba sañ jox ndigal Cheikh Amadou Ndoumbé lépp lu ñuy yëkkati di ko jëmee Touba nañ ci boole dendee ndax ci jamonoy sëñ Mamor loolu moo daan lépp loo xam ne sëñ Ablaat da ko daan yëkkati fi teew ay mag xam ngeen ni déedéet mosuñu ko fàtte ci dara kon nag ñi ngi waase waat bi ñu amoon démb ak gëdd bi ko dendee seeni coono ak seeni jafe-jafe tax nañu doon def ab genn ak taskatu xibaar yi ak mbooleem tund wi nga xam ne ni moom moo wër Touba dendee ngir di ci fësal li ne moom moo di seeni jafe-jafe kilifa yi daal dégg ndax càkkuteef boobu la yàgg nañu koo sàkku waaye boobu ba nëga ni àlla ngi ne seen daw dañuy daal di jël li nga xam ne moom moo doléance yi waaye kenn du saafara li nga xam ne moom moo di jafe-jafe bi nga xam ne ñu fay tase li nga xam ne moom moo di seen càkkutéef tali bi nga xam ne moom moo jógee daaru xafoor daal di dugg ba biir ko état bi mënta defar daal di nga xam ne moom moo di daal di bañ a wate ci dëkk bi nga xam ne moom moo di déndey ñoo ngi taxaw suñu biir bàyyiwuñ ci xel nag nan lañ koy xamal nii ni ñëw am nañ bis bu mag boo xam ne noo koy woote waat boo xam ne sunu ziar la boo xam ne bis bu lii jàllut si booba lu bëgg a jàlleel danañ ko fi jàlleel na ko ñëpp bàyyi xel nag te ci la mboolem ziar général la boo xam ne déndéeg yii lay am te mboolem taalibe bu nekk bitim réew ak fu mu waaye mën a nekk danañ ñëw ay millions nit a fii daje su boobaa jafe-jafe yëpp danañ ko wax bu fekkee saafariwu ko ñenn ci ñoom sax daal di jàpp ne li nga xam ne moo jëm ci càkkuteefu dendey bi defar li nga xam ne moo seen tali am mbir la moo xam ne daa am ay kilifa yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw détourné li nga xam ne moom moo jëm ci boobu le na nag na benn lobby marabouti boo xam ne dañoo nekk Touba yoo xam ne lu bëgg a ñëw ci dëkk bi dafa mel ne dañ koy détourné yóbbu ko Touba te Touba sëñ Touba moo jox sëñ mënu mel ni ko na sañ ci dendey ci ndigal ak liggéey ak jaamu yàlla te lépp loo xam ne tubaa am na ko ci lu baax damaa jàpp ne nag d ko war a am ndax diine mérité woon ko